original ay waay pur jus de fruits original moo leen di wéttali ci seen bépp xew-xew. jërë ngeen jëf mbokki internet yi ñuy suivre di leen nuyu bu baax di leen ziar di bëggee kon euh, ni ma koy waxee rek ñi nga xam te ñoom ci ñun confiance te nag boo leen gisee lii nag ñu ngi fii si yaraax plus précis Marissa ñoo seet ki nga xamante ni moom mooy caatu yaraax gannaaw ba mu bëree combat ak ki nga xamante ne moom mooy Doudou Sané mu nekkoon combat boo xamante ni combat bari polémique combat bari coow combat boo xamante ni ci classe bi la nekkoon nekkoon final ñu gis nag final boobu noonu lu baree baree bari da ci xew muy caat ak promoteur bi caat ak mbër mi ci ak manager bi gannaaw nag bu mu bëri combat boobu Doudou Sané daan ko gis na par avertissement luñ mosul gis ki xamante ne moom mooy caatu yaraax naan stratégie la moo ko tey rien que pour jeexal li nga moom mooy contrat gannaaw bañ ci jëlee ki nga xamante ne moom mooy Weuz Jàmbaar tey nag tungu ne du teew ñu nataal ñu ànd suñu confrère yëpp ku ci mel ni Ousin mi ngi fi Thier sama lonko ak ki nga xamante ne moom mooy naar bu Bawol TV ak caméraman yi fi nekk yëpp di leen ziaraat bu baax a baax di nuyu tamit làmb démb bi ñu fa fekk ci place am ak ki nga xamante ne moom mooy sañ Sañse sama xarit bi Yaya ak ki nga xamante ne moom mooy Wës Jàmbaar ak sama fils bi di ko ziar nag bu wér a wér dañ koy bàyyi mu nuyoo ñu dugg ci waxtaan bi cat ñu ngi lay nuyu. auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim waaw ginnaaw bañ sant yàlla euh, julli ci yonent bi ñu ngi sant suñu waajur bu baax a baax di leen ñaanal yàlla gudd fan ak wér bañ fekkee suñu njëriñ. di ñaanal yàlla ñu nekk ci kaso yi yàlla suñu borom dellu leen seen i kër bañ mën a ufaat seen njaboot ñi nekk ci laal hôpital yi suñu borom fëgg seen bopp bañ mën a delluwaat seen njaboot di ñaan yàlla xalif généro yu Sénégal yëpp yàlla suñu borom bàyyi leen fi ba ci jàmmi Sénégal gën a sax ndax ku ci nekk xam na ne euh, Sénégal kilifa yi ay réalité lañ ndax ñoom dañoo bokk ci ñi téye jàmmi Sénégal kon ñu ngi leen di ñaanal xalif généro yëpp. waaw di leen ñaanal yàlla bàyyi leen fi ci kanam kanam di di ñaan yàlla ci jàmm jàmm euh, maanaam di ñaanal euh, làmb jàmm ndax jàmm rek moo fi xaj di sant Sénégalais yëpp nag di la nuyu di nuyu siti fi yëpp di nuyu suma gars yi staffu Thiatou Yarakh di àdduna laal jaajëf Fatma. d'accord nuyu bi am na solo mais fi ñu njëkkee ak yow naar aca fi ñu njëkkee ak yow mooy sa combat Doudou Sané coow li dafa am ci li nga xam te ne moom mooy final bi. Thiat dafa war a bëre warul bëre à un moment donné Thiat d'accord ni day bëre su ma jógoon ba mu desee une semaine lañ confirmé ni Thiat day bëre ñu gis ni ki di Bakary Sakho di ko nuyu au passage bu baax a baax amoon na benn stratégie bi mu fi ñu gis ni stratégie boobu nga appliqué mais Thiat lan moo tax mu d'accord euh, à une semaine ci combat bi mu jël avance Dour Sané waaw loolu moom yaakaar naa ñun liñ fi jot a leeral yëpp coow amee ba léegi. moo duñ fi leeral lu Sénégalais yi déggaat ginnaaw ay jàmm. ndax fii coow li sax ni mu demee gars yi ñoo ma ko gën a maîtriser kon dañ ci sant yàlla bu baax a baax rek di xamal ne bëgguñu woon lenn luy gàllankoor làmb te aussi ñun bëgguñu woon lenn luy gàllankoor tamit suñu carrière ba tax na ñëw nañ mottali suñu contrat ci jàmm ak salaam. lépp lu ñu waroon def def nañu ko bis bi jeex na ñuy xool leneen li nga xam ne mooy suñu kanam. incha allah rabbi mais Thiat bis bi jeex na mais mënul jeex ndax Thier une semaine nga jël combat bi te dañoo waxoon doo bëri danga nga euh, sotti bi nga xamante ne waa CNG moom lañ def loolu moo tax nga reculer lan moo tax nga reculer parce que def nga point de presse ak wax ji fi amoon yëpp mais recul bi lan la woon. non du question ko reculer sax. Mm-hmm. xam nga borom kër moom borom kër la mën a la mën a tudd. comme yàlla dogal na CNG bi ñoom ñooy njiit ñoom ñooy suñuy kilifa ñooy diriger ba coow li bëree këccaat yara am nga ndam am nga am nga dëgg wala da ngay fenn ñoom jël nañ seen i matuwaay xamal ne ma ne boo bëri siwul sanction yi dina la dal léegi nekkatul maag promoteur nekkatul maag manager comme maag CNG la te mënuma jaayante ak ñoom doole moo tax ma ñëw moo rempli sama contrat ci jàmm ak salaam jeex na jeex na làmb ci kanam dëgg yàlla bëgguma dara lu yàq làmb ci bés

nga xam tamit doomu aadama kenn ko not kon boo ma jaayee doole rek xëy na muy ni samay pexe mais doomu aadama kenn ko not parce que fii li may wax toujours rek l'indépendance étant derrière nous bu mu jaam dafa jeex te aussi tamit ñun mbëri c'est nous les acteurs principaux acteurs principaux yi ñun la comme ni ma koy waxee ndax tey promoteur mën naa ñàkk CNG ñàkk mbër am te lamb day am CNG mën naa bañ a am ndax ay jamono CNG amul woon promoteur mën naa ñaax am teewul mbër yi mën nañoo dem bëri ji amateur ñëw seetaan kon nañ xool tolluwaayu mbër fi mu toll ak mbër mooy kan ak ban dayoo lañ ko war a jox tamit maa am sama doole maay ngemb Sénégal yëpp di ma seetaan wala askan yëpp tiim ma mais daf may neex ma defee ko ni ñu ko bëggee. waaw mooy li ma wax rek xëy na làmb ji jeex na tey bëggatuma def benn polémique. ndax euh, jamono ji maa ngi xoolal li sama kanam mais pas que may defaat ay polémique yoo xamee ne mm-hmm. version yi day jaar gauche wala droite te bëgg yow ma ko noonu jàmm laa doon bëgg mm-hmm. dem na ba nga xamee ne ma maay nekk sama réalité ba Sénégal yépp xam ko mm-hmm. may sant nag Sénégal yëpp vraiment ndax euh, dëgg yàlla doom ku tooñ du neex faral te bukki nee na liñ xaw ma dëgg waaye li ñëpp waxee dëgg xam nga ne tey vidéo bu mu def ci Thiatou ba ci commentaire yi ni muy positif yi da nga xam ne kii il a raison. mais ni nga ñëw see rek. mais lamb innovation la xam nga tey. Ah. règlement CNG bi da ngay topp. cosaan lañ doon topp te boo xoolee cosaan ñoom ñoo ko njëkk a ci lamb mooy que bitéeli bu mu bareeti jarul tuus bi di ëpp jarul yenn aar yi di am doo indi yenn bijjini guddi yi muy bijjini koob ak yooyu hmm. lépp li oon neexal lamb aar bi rey nañ ko bu yàgg. kon dafa jot mbër di sol jasineer bu rafet doon ci làmb. Mm. sabotage bi ñu wax. non sabotage. cat dafa saboté. non non non ñëw xam nga xam nga tey. Mm. du question de sabotage. Mm. parce que parce que tey mbër nga dugg si sol yëre yu yëre yu set kenn bañu ko loolu CNG daq ko ci ay règlement am tous du par force da lay neex nga pousse parce que tous boo ëppalee sa temps sax dañ dagg sa xaalis li nga xamee ne moom mooy obligation bi. mooy nga dugg ci géew gi ngemb ñëw heure xam nga bañ a ànd ak ñu bëri dugg si ci heure respecté règlement bi te def naa ko kon comme contrat bi wàcc na ma wax dëgg yàlla mootu mootu ma expliqué Sénégalais yi luñ mën a déggati quoi vraiment parce que ñëw naa ci làmb ji bëri si naa làmb ji jeex na waaw. Ah, euh, nga ñëw benn kii boo xamante ne ñëpp ne day sabotage nga ne saboté mais dañuy ñëw ci kon ci combat bi. Mhm. ba mu ñëwee takkul gis mu laal dara mais gis nañ nag mu def ay pexeem ànd ak Ma war a àndal mais tey ci bëre bi ñu gis ne stratégie bi nga bëree bettu kenn mais ci wàllum bëre bi lan xam nga làmb xel mu dal moo koy def man bu ma ñëwee dugg si état bi mhm. sama oto maa ngi ko bàyyi mat la. baraad ak kaas dama naroon teg caayan indi woon naa benn mergaat boo xam ne ak sama benn njaganaay comme ça xam nga làmb day jël temps te taxawaay beeg yooyu dalay nagam te ngemb li ngay taxu yooyu noonu sa yaram xam nga mën na la nagam balaa combat bi di jot sa deret ji di circuler doo mën a nekk à l'aise moo tax je préfère ma sañse ñëw xam nga te sama baraad ak kaas ba ngemb jot ma ngemb moo ëpp ci man trop ma dem bëri ji. d'accord mais ci champion la maa ngi koy nuyu wax dëgg yàlla euh, dégg naa histoire tam nag mu génn di wax naan caat yaraax ñemewu ma daf maa ragal wax dëgg yàlla ni ma jëf jëflanteeg moom keroog bu fekkoon lu ma pare la ñu waajal ko leneen la ñuy wax ndax euh, man conseil laa bëri dem naa ba sama deree tàng sax may def loo xam ne man kenn santuma ko. nga ñëw euh, léetoo ba kii jeex par non de question dama ñëwoon pour bëri moom parce que man wax dëgg yàlla coow mu bëri bëri du ma dem ba ci géew mm-hmm. sama bopp wala may ñàkkal sama bopp fayda mais est euh, def hmm. car yaar ko deux sorties yi ñaari sorties yi ma def yëpp dëgg yàlla man maa man maa génne sama bopp ndax mbër daaxu moo ma génn mbër du moom moo ma génn kenn mbër danga ma génn man maa arrière génn mais làmb am na tegtal su la neex nga dem sorti libéré sorti libéré mm. mun naa maara bi wax la ko ne la da ngay génn pour que nga toccal mbër mi wala dara mm. xam nga euh, beneen bi mooy man su ma neexee laay arrière mu toog ma mais su ma arrière du ma topp man déedéet Doudou moo gën a ñuul ci làmb ji Doudou Sané mm. barki Cheikhul Khadim làmb ji nag jeex na non mais Doudou puusul paasul sénégalais dañoo jàppoon ne man damay ñëw ñu indaale seen nagu dëj pour que Doudou lekk ma ci biir géew gi te duudu man maa mën ko ko mën maa ko mën fuuf. mais xam nga tey xam nga tey non non. man maa décidé wul déglul déglul du question que respect ñu lay seetaan ah, nga tey foofu làmb ji lu fa neex maa ko def. nañu wax ne dëgg rek Doudou Sané dafa amoon lu may seet rek ci conseil yi gars yi mais barki alxuraan bu doon sama yaram ni mu doon laajee ma topp ma ma bañ a maîtriser sama bopp topp sama xol dinaa ko duma ba mu tëdd ci esaat bi mais xam li problème bi euh, àdduna dafa am na muy doxee caatu yoraax mënoo bàyyi bañ ne suba la làmb ji nga woo ko téléphone ne ko boo ñëwul ci làmb ji naa la aj naa la aj temps nañ la alamaan temps nañ la def nangam nangam xam nga déglul rek xam nga am na yoo xamee ne man bëgguma ko vraiment mooy li la wax rek kilifa gi moo doxalee noonu ni ñu doxalee ñun ànd nañ ci war nañ ñu pour ñëw bëri si yàlla xam na ne làmb ji dama cay feebar di samp ay perfusion ba jour combat bi amul benn yoon boo xamee ne ànd naa ko bës jàmbar entraînement wala ma ànd ko ci di daw nit ki nag mënoo nekk ci ay tawat ak ci yeneen problème xam nga làmb ji làmb ji mooy li ma la wax parce que gars ñoo topp seen xol moo tax mu demee nii li ma leen waxoon bu fekkoon doxalee nañ ko noonu mën nañ bañ a métti ñun ñëpp mooy mais nga programme làmb ji Sénégalais yi xam nga xam ne lii làmb la après ñu ñëw bëri ko ci jàmm stade bi fees dell sponsor yi kontaan aduna kontaan ñëpp kontaan mais tamit xam nga fii tamit wax dëgg yàlla nit ki loo ko bëggul def loo tew neexu ko du demee noonu bés yi mënoon naa gën a neex te man jàpp ma ne bis am na parce que dama doon sauver suma carrière moo tax ma gën a ñëw ci stade bi bu fekkoon CNG bi oote na maanaam ñu dialogué peut-être euh, Thiatou Yarakh mën na bañ a nekk la le 28 mu préparé ko am mais yow koo xamee ne néew la xanaa waroon nga mën a jàpp lekk ko wala nga dàq ko ba jàpp ko. mais non mais par par par par par benn centimètre lay bougé ci biir géew gi ñu ne ko bul bougé parce que booy bi boo jugee da ngay ni xob ci moom. wax dëgg yàlla waaw mais. maa ngi dégg maa ngi maa ngi maa ngi maa ngi dégg mu naan Caatu <laughs> Yaraax ñemewu ma yow lépp lu neex ci biir stade bi maa ko def man maa ko duma man maa ko jëli ak ni muy toll noonu lépp man maa daw jëli ko mais tamit ponkal bu toll nii Doudou Sané xanaa du taxaw benn place nga ne da ngay bëri ak moom par force daan ko par force. no dernière minute bi. non pas dernière minute dernière minute ak première minute mi ci am làmb léegi la wàññi temps bi 45 minutes la doon duré 10 minutes kese la ñu ak moom. kese weesuwu ko yeggul sax 10 mais dama ne la man li ma daw doon ko jëli. bu fekkoon làmb ju ma waajal la mu taxaw ak man du taxawaalu man musuma congu mbër benn cong te jeexul. mais kon man yow gëmoo loolu de. xanaa déggoo li ma la wax de moom ñi ko sopp ñooy wax loolu mais dama ne la moom dafa nul moom amul benn clé lenn kese la mën nga song ko mu fàqat la bu fàqat bi rëccee day taxawaat di la xool. li muy bëri mbapat sax da lay jénee par point yi day mat si niil par point yi la lay jénee wala nga jaayu ba jeexal yow mu daan la te xam nga ne ku mat 200 kilos taxaw ci géew gi tamit nga ne da nga koy jaay doole par force mhm. loolu mënut a nekk mais moom gis nañ ko mu lay saraxu naan arbitre bi ngir yàlla bàyyi ma ma bëri bi tamit bu ko bàyyi woon dinaa ko dóora mu dee barke alxuraan boobu xol bi na arbitre bi bu ko bàyyi woon ah, ah. dinaa ko dóor ba mu dee moom arbitre bi non bi waaye mbër mi nga naan arbitre bi dinaa fi nekk di xeex arbitre mais moo tax nga dóor ko ci ginnaaw ku yoo xamante ne moo gis nañ sax moo ko jooyloo ku yooyu nga ko dóor ndax dégg nañu wëes mu ne da ngeen ko bëggoon a merloo mais ku yooyu nga ko dóor yaa ko tey non koon ñàkk yóbbaale ah ku yaa ko tey yooyu mënu koon ñàkk yóbbaale barke alxuraan yow maa ngi lay song ah. boo gisee nag dernier song bi li tax ma arrière ah. ba ma demee jëli tànk bi dafa déplacé tànk bi bëgg ma teg ko am hmm. te foofu noonu bu deful benn réaction man mun naa jumloo sama bopp parce que laa ma jox ma ne préparé woo ko musuma ci entraîné defuma ci dara feebar di tëdd hôpital bañ ne suba la ji koo xam ne mort vivant la yow yaa ngi taxaw ci géew gi mënoo ci mën dara puusoo paasoo xeexoo dumawoo defoo dara luy neexal làmb ji mais vraiment nañu wax ne dëgg bu doon dudd moo ma dàq ma génn làmb ji mais lépp man maa génne sama bopp ñaari avertissement yi maa génne sama bopp comme ni ko gars yi waxee xam nga macha allah mais Thiat ku xam na ne làmb ji avant ngeen bëri yéen ñaar amoon na ay face ma wala trois yoo xamante gis nañ ci Thiat ku ne xam làmb bu jeexee mardi gars yi dañuy daje CNG xool jël si résultat yi ak convoqué mbër tey ja ba la CNG wax loolu ay waxu caaxaan la contrat yi ma signé woon man mm-hmm. dem naa ci face su face yi man maa gën a respecté sponsor ci làmb ji man Thiatou Yarakh du ngeen ay nit di ma seedeel ne Thiatou Yarakh bokk na ci mbër yi njëkk a teew signature contrat toog di xaar ay moromam benn mbër gënu ma respecté sponsor. mais sa diggante ak Doudou Sané moom laa lay wax foofu contrat amu fa. dama ñëw pour mottali contrat CNG mais pas contrat promoteur. contrat promoteur boo koy mottali day fekk ngeen signé seen ngeen signé sponsor ci final. ngeen signé final ngeen su ngeen signé xaalisu final wala da ngay ñëw fii wala nga ñëw fee mais loolu amu fa la moo CNG li tax deful réaction parce que xam na ne wax dëgg yàlla caatu yaraax yooyu duru doon dem. ma fay def bu fekkoon lu ma signé la dama fay dem. mais daf ma fa dara wax dëgg yàlla. non CNG bi mooy li ma la wax. borom kër la dafa joxe ndigal ñu ne ma Thiatou Yarakh tu devrais être là le 28 sinon y aura des lourdes mm-hmm. loolu boo ko déggee da ngay tiit ndaw bu nekk ci yoon. ndaw bu nekkee ci yoon. Mm-hmm. xam nga ñu bëgg la aj 5 ans wala 10 ans. Mm-hmm. plus ay amaanu million fu ma ko jëlee te xam naa ne dama am ay soppe yi mooy topp te tey bu ñu ayee Thiatou Yarakh 10 ans 5 ans. am na ñoo xamee ne dañu doon topp ci làmb dama leen di sooxee te dëkk bi tam duñu defal seen mbërëm toll ci benn niveau bi ñu koy pertaat il faut ñu sauver carrière loolu moo tax ma ñëw sauver carrière bi à ma manière CNG bi wax dëgg yàlla jàmm la wax ci man jàmm kese la wax ci man ah libéré na ma total amuñu benn problème parce que aussi tamit euh, ay kilifa lañu rek xëy na dañu doon defar kër gi ñoom gis nañ nii dama war a ñëw ñoom loolu mooy seen gis-gis moo tax ñëw naa motali sama contrat kon awma leen lu may wax waa CNG ñoom ñooy suñu kilifa nañ xool lu mu gën a rafetee rek saa su nekk ñu koy doxalee beneen yoon burul man di morom bu problème amatee bu ñu xaar kenn bu ñu xaar reporter bu ñu xaar journaliste di intervenir ba pare ñoom ñuy soog a def ay réaction ñoom ñooy kilifa gi saa su nekk ni ngay amee problème bañ convoqué la ne la yaa dóor nit te tay ko wala yaa def nii te tay la sa sanction mu ngi nii nañ koy defee nii problème bu amee nañu woo nit mu toog ñu def table ronde ñu waxtaan dialogué solution dina am waaw mais wax dëgg yàlla aw ma lenn loo xamee ne mun naa leen sànni xeer wala dara waaw suma reliquat jot naa ko dagg nañ ma nag lu bare bare reliquat bi kay njëgu at barat a kaas rek ji xaw ma war kaak suwar laa jot xaw nu mu noonu mais loolu dara promoteur bi dégg nga kàddu yu mu yëkkati. Mhm. kan la euh, moom Makan. waaw Makan suma frère la maa ngi koy nuyu bu baax a baax. ah waa ne sabotage di ko maa ngi koy nuyu amul problème maa ngi koy nuyu bu baax di wax ne suma frère la. Ah. Makan euh, comme yàlla dogal na ci kalaafam laa génnee. Mm. kon dama koy sant di ko gërëm. Mm. Euh, ginnaaw ay jàmm. ndax euh, coow li bëri woon na. Mm. man nee naa bu doon maag moom kese. problème bi du yegg fii. ndax xool bu rafet la yor keroog moom toogee ci plateau bi dégg naa ay kàddoom. boo ko laajee caatu yaraax li mu lay wax leen la ñëw na mottali contrat mbir mi jeex na. kon du ma andi benn kàddu bu ñagas ci sama diggante ak moom. maa ngi koy saluer passage. di ko wax ni jàmm ci yow li nga bëgg ci yoonu làmb suñu borom defal la ko. ces journées continuer di neex. xam nga man sa frère la yow suma grand nga yàgg naa fi jógee ñëw gàlleem ci classe bi xam nga ñuy diisante xam nga may am ay problème sax ñëw foofu noonu ci moom comprendre nga. Mm. kon tey bu demee nii peut-être seytaane moo ci duggoon am na loo xamee ne euh, peut-être ñoom jàppoon nañ ne ñoom ñoo ne ci dëgg man ma jàppoon ne maa ne ci dëgg mm. yàlla dogal ne euh, affaire bi maanaam jeex na ci jàmm. kon nañ continuer ci jàmm ak salaam xam ne c'est le monde de la lutte qui gagne. amul leen lu ci perte